Basiir mooy wax ak si jinne yi nu mu tudd li li ànd ak yow nu mu tudd dëgg wax ko ko Ibrahima Ibrahima Aïcha Ibrahima Ibrahima wuyu ma Aïcha waaw Ibrahima ak Aïcha ak kan Ida Ida waxal tudd kooku nu mu tudd. Dila Dila. Dila. waaw Ibrahima la Aysa moom bu ñëwee ñu bari ñooy nekk ci moom day tudd yeneen i tur yeneen tur tey mu ne Ibrahima la suba mu ne Aysa la suba mu ne Dila la tey jii sax dafa ma jaaxal bi nga ko waxee mu jox la turam ne la Adja. ñëpp laa bëgg ñu tuub damaa bëgg ñu tuub léegi léegi léegi. Ah, waaw waaw nañu tuub ci leer sallallahu ala muhammad. sallallahu ala muhammad. aywa. Ibrahima ñu ne ñu ngi àndal ñoom ok ñëw na ay ay saag Ibrahima ñëw nañ wala ñëwuñu. ah. ñëwagul. kan mooy ñëw noonu. na gaaw na gaaw léegi ma na gaaw léegi nan ma indil ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw toog ñoom ñett ñëpp. boo leen ko boo leen tay tay tay tay yéen ñëpp laay rey ci leeru Basiir. waaw waaw yaa ngi may dégg. yow laa wax yaa ah, sori na. jëlee sa loxo te sa bopp nga jëli leen léeg-léeg jëlee loxo. ñëw nañ. ñëw nañ. waaw. nan toog nan toog. toog nañ. wax leen lii ma lay wax. nan. allo. denc ko moo waat naa ko jël naa ko dama ko duggoon ci gannaaw fi loolu waaye jël naa ko moom lay wax dama fekk ñu am ko ci foofu te foofu ko géntoon fan ko faa géntoon fan yële. jëlal jëlal appareil bi si noppi tuuti ma laaj ko jinne ju góor yooyu nan la tudd ma ma tuubal ko léegi ndogu dem jumaa ji ñu ray Aïcha allo. Sidi waaw man la eh, Sidi eh, waaw. Sidi yow laay mooy wax si leeru Basir laa lay duma ba nga réglé. nan la tudd. nee na. mënaluñ ko Sidi Sidi waaw te leeru sallallahu ala muhammad dama bëgg ñoom ñëpp nga ñoom ñëpp ah Sidi waaw Basir jàppoon na la bu la jàppaatee da lay rey nga woo ñoom ñëpp ñu ñëw léegi oh man kenn nit laay eh. maa lay fekk foofu man maa lay fekk foofu yow man wax rek sax ma àndal ah, ñi nga àndal ñoo gën a garaaw. ñi nga àndal julli leen wala duñ julli. julli nu eh, eh, man dama lay rey léegi si leer dama lay rey léegi xoolal sa kanam looy gis. looy gis. looy gis sa kanam. commence faale yi ma dara lu ah gis gis nga loolu loolu moo lay fekk yow la nga nga léegi léegi léegi ci doole Basiir wala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad yeew leen ko léegi léegi Ibrahima yeew leen ko léegi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad jàpp leen ko leen ko ba jàppal sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu daaneel leen duma leen ko ba mu fay duma duma leen ko duma leen ko léegi léegi léegi ci leeru sallallahu duma leen ko waaw noppi laa wax. daa leen rey rey benn eh, laa eh, rek. Eh, Siri yow laa waxal noppi. Siri mu déggaat nga saaga. Oye, yo, dígale más. tàllaloo sa loxo yow meer meer tàllaloo sa loxo. meer Sidi sallallahu ala muhammad sallallahu Sidi Sidi dama lay rey man. man dama lay rey élément Basiir bu tàng laa dama lay rey léegi léegi léegi léegi meer tàllal la sa loxo. meer tàllal la sa loxo. ah tàllal la sa loxo yow. sa loxo ndeyjoor ci kaw. sa loxo waaw. waaw. waaw ci kaw. waaw. jàngal juróomi ñaari sallallahu ala ko jël leer gi sànni ko ko. baax la xam na doole Basiir Sidi mu ngi waw ah mu ngi waw mu ngi beneen mu dem léegi jumaa ji wala mu génn foofu koy day dem jumaa ji bu demul jumaa si. doole. doole Basiir. aywa. nee ko mu tuub léegi léegi dafa tuub léegi ak ñi nga àndal dafa tuub bii yëpp maa ngi lay dégg yow rek laay dégg ba gént la ay ja aywa jëndal ma fi xaalis jëndal ma fi xaalis laaj ko lan lay jàkkaarloo si kanamam lu la jàkkaarloo sa kanam lay wax lan nga jàkkaarloo ah yow si yow laa waxal sallallahu alaihi wa sallam delloo jumaat pare na ah aja waaw aywa bismillah génn na asalaamaaleykum waaw ah man la waaw ah kii la kii la bu defee xam naa xam naa reer reer reer leen na waaw bu kiiwee day génn day génn damay gis day tëb génn ko. léegi ana mu toog na. waaw mu ngi tëdd day daal di nelaw léegi nag ma toog. waaw waaw mi ngi nelaw. eh pare na. sa bopp. Adja doo sangu bi. doo sangu tey. waaw. xaw naa daw. ah da daal. ah ah, ah, ah xale yi tey dañoo xëy ñëpp dañoo bañ a dem ci biir mais bi ma ko gisee laa ne leen si kër gi la dëkk ci fa ci fa xam naa moom lay doon rek mais man nag dama jàpp moto bi muy yor. moom moom sa doom yow noonu la ni mu tudd la